Moi, ça moi six ans que j'ai fait ici ce que j'ai appris là c'est comportement humain mais Django Moko depuis eh ben, j'ai 60 et quelques années Mousse Moko Django. non li ma pas fii j'ai beaucoup appris et c'est de bonnes leçons je remercie les populations de m'avoir aidé à me comprendre vite. je comprends mieux les gens Il y a un simple le maire de Gueltapé, Fas a vendu le marché de Gueltapé à Auchan la presse Gelko. Ça m'a fait très mal, parce que je ne connaissais pas Auchan. Je n'ai jamais discuté avec Auchan. Jamais de la vie, Mais quelqu'un a voulu faire mal, il a sorti ça. Et comme nous sommes dans un pays où Degna, il paraît, il semble, ils prennent, au sérieux, ils prennent ça au sérieux, ils l'ont balancé. Et mes enfants qui étaient à l'étranger, moi, mais qu'est-ce qui se passe Comment tu as pu faire rentrer dans un truc comme ça J'ai eu très mal. Mes propres amis, il y en a certains qui disent, mais Ousmane, dis-nous ce qui s'est passé. Ils sont allés jusqu'à douter de moi j'ai dû de mon jël ñi ko wax ànd ak c'est le préfet ñu toog préfet toog mané préfet né il faut qu'on trouve une solution entre vous mané la seule solution qu'on peut trouver moi que ñu nangu ne lii ñu wax du tant que waxuñu ko dootuma wax ak ils ont avoué devant le préfet que li ñu wax du dëgg wax qui défend kii deful kenn dara dafa fekk rek dañu dégg ne ñu ngi toj marché bi dañ ko nar a changé te bëy sax bokoy rendi ci suufu mat la xaw ci suufu table dina même lolou tax ñu yux vous rendez compte vous vous rendez compte vous avez vous avez yàq ngeen deru jambour pendant une journée le pays m'a vilipendé ñi am ci benn nit ça je le retiendrai jusqu'à la fin de mes temps nee nous sama bocal. la je wax ma dég. mu def seen audio yooyu mu ne sommes mbokk la mais yàlla bu ñu daje àlaxira ndax li mu ñu def gël tàppe dem jaay ko champ. te nee na bokk je sais même pas qui c'est elle a dit en audio une une femme pour vous dire simplement je sais qu'elle le regrette aujourd'hui parce que gis na pas amul mais c'est un peu comme ça que ça marche notre pays si on fait pose la première pierre on a perdu beaucoup de temps avec ces histoires de tergiversation d'un d'un on pose la première pierre une fois que la première pierre est posée 10 12 mois mais quand est-ce que ah, on est en train de réfléchir sur ça ah non. Non, combien de mois Non, quand même. Non, c'est sous peu. Le marché de face, un promoteur a fait une proposition. Nous avons discuté avec lui. On est en train de discuter avec les commerçants. Lui, il est prêt pour faire le marché de face. On est en train, oh, on est en train de trouver un site de recasement. Ce que j'ai appris, j'ai commis beaucoup d'erreurs. D'où erreur du mode taïko. de yakamti. Réflexe d'un homme d'affaires. Je veux aller vite, je veux régler les affaires. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Si c'était à refaire, je ne commettrai plus ces erreurs. J'ai commis, commis des erreurs. C'est honnête. Coloban, je ne pense pas, c'est l'autorité de la République, comme ils ont fait sur Sandaga. Nous devons faire Coloban. Parce que Parce que Koloban, nous avec 6000 euh, cantines à peu près, imaginez bés boo leen toj fan ngeen def état rek moo ko mën. non je nga wax ñoom man avez ngi wax rek xam nga man on a la réflexion homme d'affaires là toujours je pense que may def faire euh, mais euh, tay su len leen len won d'accord na bañ ne waaw fan lay dougal 6000 personnes 6000 cantines boo xam 6000 personnes y a dans ce marché là il y a quoi il y a 10000 personnes qui travaillent plus de 10000 personnes fan ngay dougal 10000 personnes dans ma commune amul. légui li ñu mën moy ñi dëkk ci tali bi ñi ñi def boutique yi cantine ci tali bi ñu jëlé len fa mais lolu it nak mo wax la ci len rek gis nga ñi nekk ci buntu kër yi borom kër yi len fa tek borom kër yi. ñu leen fa teg parce que dañ leen di fay bu weer dee dañ ciy jàppandiku waaye yow yow kii moom teraanga mag la retraité na taabal jii mu bàyyi ci buntu këram ci lay amee dara yow nga ne maire nga d'accord ma ko fi naa ko fi jël pour xañ ko ko mënu ma loolu it dafay jafe yow naa fi suba ma ne damay damay daaneel benn benn rue li fa nekk ci cantine bi am na ñu dëkk ci rue bi ñoo ma ne sëñ bi bul defee boo defee di def musiba te ñoom ñoo daan wax naan fii dañuy sonn mais bañ demee ne caaxaan faaxee dañ ma ne parce que ci la ñuy yor teraanga kër gi nga bàyyi maire nekk maire dafa métti ah. bes bo décider yow mi dëkk fi bes bo décider sama buntu kër naa ko ñëpp def ni yow légui cadre bi normal mais yow da ngay génn mbalit mi tek ko sa buntu kër te do génne mbalit ñamu mbaam ngay génne parce que li ngay génne sa desetu ceebu xooñ yaa ci def lo for ci bir kër bu xaj bi démé ci xaj bi ci bir kër sa deseem yaa koy def ci bir ngeen jël loolu dutul mbalit mu nek lu jaxaso nga jël ko tek sa buntu bu oto bi ñëwul tey ñëwul suba ñu ne ah bon dañuy fontoo ñu jël yëpp teg ko ci diggu tali bi c'est d'abord nous il faut que dans nos ñu ñu raxasaat suñu bopp bëgg wér nañ set ba pare set gi nag dañ koy def suñu biir kër sàmm mbedd mi mais mbedd mi mbedd buur la lu ma am naqari ma sànni ko ci bu ñu waxante dëgg rek soo raxasee sa kër ba mu set ut sa mbuus def ci sa mbalit xaar oto mbalit bi ñëw nga génne ko bu ko ñun def léegi léegi jàmm ne ñooy mais ñun ñoko ko deful cadre bi du mësa bax baax tant que ñun jëluñu conscience ñun ñoko défar mais su fekkee da ngay xaar nak état bi moo koy def UCG moo koy def maire bi moo koy def est-ce que mën nañ ko c'est pas possible ça doit commencer par nous en tout cas je vous dis une chose tant que mandat bi jéxul du ma teggi sama tank ci wax ak nit ñi ci jubalé leen ci man ci def pour ñu jappalé li may def ma koy def suba nak yalla moo ko yor koo fi yow suba teel naan suba dama nek leen da ngay wax lu neex yalla rek mo xam léegi nag Dès naa Macky Sall ñu ne ko ndax da nekk candidat la euh, constitution bi je ne dis oui ni oui ni non. Non, non non j'ai pas dit ça. j'ai pas dit ça bon ne fait pas dire ce que j'ai pas dit parce qu'on parle ici et les gens vont l'interpréter s'il dit oui les gens vont lâcher s'il dit non les gens vont lâcher qu'est-ce qu'il faut dire c'est difficile ce pays moi, je m'amuse aujourd'hui à dire je suis candidat. Sous 50 000 personnes d'autres Il faut qu'on le liquide avant qu'il ne vienne. Il ne faut pas qu'il réalise le marché parce que s'il le réalise, il va avoir des points par rapport à nous. Je dis, je ne suis pas candidat. Ah oui, il nous a lâchés. Il était avec nous. Il nous a lâchés. Qu'est-ce que tu fais Pour dire la vérité, deux options là qui dama ne du je peux me tromper Je ne Nous ne am pas ko monter Ben suñ ko monté wul ki ko def dafa àndul ak sagoom am na lu tax mu def lu mel nii àndul ak sagoom c'est comme quelqu'un qui qui qui prend une benn euh, fital du dóor boppam il a des moments moment bi mu koy def du nit donc su fekkee si c'est l'eau, il est très violent on le sait ci dans ces termes il est trop dur on le sait mais gëwma ne nit mun na jóg noonu wax wax bu ñaawee noonu tudd lu gën a ñaawee noonu foo fàtte say way jur ñi ngay àndal di wax lu mel noonu non soit àndoog sa sago wala li ñu ne ya ko wax waxoo man parce que duma ko def duma ma ko defloo kenn su fekkee moo def nak ki sago dara jotu ko def na lu ñaaw wax na lu ñaaw ma ngi ci jégalu sama yonne wu ci ndax nak olof njaay moy wax ne limu saf kiko macce ko xam su fekkee ne en toute conscience à toute lucidité la def li mu def moom moo xam li tax

war nañu ba dañu nan tay dafa am ay profil pour nga nek conseil municipal dafa war am profil pour nga nek député am na minimum bo xamni war nga ko xam am na ben minimum de comportement ba war nga ko am parce que da ngay taxawal xeet da ngay taxawal njabot da ngay taxawal dëkk dafa am no wara mel dafa am lo wara a xam un minimum bo wara am soo ko amul nag te yow teesante xuloo rek moo la fi andi li la fi andi mooy dëgg ci yow loolu ngay wéyu daay man man d'abord nit mënuma armé saagaloo ma nit donc sama xel du nekk ci ma armé nit muy saaga nit loolu xalaatuma ko su fekkee nag loolu mooy tax nit ñi toog wax dëgg yàlla bon na ma gars ma dem parce que nag man du ma jël ci kaw nit loolu amul sens c'est un su fekkee loolu rek mooy tax nit toog noonu nañ bàyyi ñu toog fa ñu toogoon parce que yàlla ñuy suturaal nag ba ñu toll fii mais bu nekkee saaga rek moo ci des saagante te nit a yabal nit pour mu nit ah non ça c'est c'est duñu et je plains la jeunesse je plains les jeunes qui vont venir parce que ñi encadrer tek leen ci yoon duñ ko c'est dangereux si c'est comme ça que ça se passe xam luñu war def nañ defaraat toogin yi nañ yar des yi nañu yaru ñun suñu yar wax wax ju baax ci wax ju baax ci am lu saaga amul xarab amul xuloo bi amul njëriñ man dañu ne sama adjoint bi baa ba kër Diop dafa toog bi benn bés ne ma grand nag yow xuloowoo xeexuloo atte woo xeex ma ne ko lu ma war a def dama war a xuloo dama xeex dama war a atte xeex. moo tax nag ma ne il faut ñu dindi loolu suñu bopp duma ma xuloo du ma xeex ñu naan dafa mën a maslaa grand bi buggul kenn mer yàlla nu yàlla suturaal ba bu moo fiy jógee bu kenn mer man loolu ma gënal ma nekk fi nit ñi di mer. yow man yalla denk na ne man maa la war il fi fii ma lay gis ngay merte du ma ko fajj dama ci jëm li ma mën soo jëmee ñooy dafa bari masla pourtant ba jang ko don saga demb mais sama cieur moy may ak nit ñi sama cieur moy ma fexé ba nit ñi xamni lu baax rek la ñu war def ñukay def man nak may joom nak nangu ne damay joom damay joom nit kessé la suma joomé nak na nit ñi muñal ma dama joom mais nit ki joom na nga nek ci kawam di ko dóor xam nga ne lii du joomu tayef lolou ci li yak dëkk bi la bok dafa am ñaari yëf yoo xam ne dafa yàq ànd nga jël nit teg ko lu mu attanul defu ko nga mere ko mais yaa ko teg lu mu mënul xam nga tey nga ñëw ne ma tey dama bëgg tey tey tey tey tey nga may ma oto xamuloo ndax man mun naa jënd saret mais yow yàq jàpp nga ne war naa mën a jënd avion donc yow li nga jàpp mooy dafa bañ diggante bi mun na yàqu wante it nag lu la yomb lool mu sama poste bi ma am ci téeméeri junni yow nga ñaan ma cent franc ma bañ loolu it day yàq de donc donc ñaar yooyu dañ ci war a bas suñu xel te ñaar yooyu ñoo yàq ànd il faut ñuy bujjalante il faut ñuy jéggalal mënuloo loo dégg lu ne nga ne noonu la da ngay xamal nit musiba nga nëbbal ko ko woko ci mek wax ak ne ko li baxul tout lii del defini parce que lolu moo ñuy développé loolu moo ñu yokk su jikko yu bonee damay fàttali Latif Guèye daan wax su dëkk bi don taw milliard par seconde bu jikko yu baaxul milliard du am jari c'est Latif qui le disait souvent mais il avait raison il faut ñu defaraat jikko yi commençant par vous vous vous vous vous homme de la presse tel rek ngeen ne il faut faire attention parce que vous êtes une

mais ñu taqal na ci souvent ñu bind ko ci réseau yi yooyu buñ ci jógul ci réseau yi jóguñu ci noppi bañ a wax lu ñu xamul dinañ yéex a dem.